doon sonal seen bopp non dama préparé lii non. ah béy bi dama ko préparé mais moom leer nañu ko ma ko wax xam nga Ousmane Sonko dina ko génn leneen li si des pour mooy nit ñi ñàkkal bi la bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti étape par étape la ñu nekk pour le moment daf ni Serigne Bassirou Gueye dafa falsifié procès verbal bi. donc complot la ni mu ko mooy dafa am ko doon setal mu dindi ko naa leen ni leen setal naa sama bopp wan naa leen man dama setal sama bopp parce que taxaru ma mais wan naa leen loolu amul nee naa leen ñett mu wax nii dama ko génne benn bi xam naa dama siiwul ma benn bi mooy li mu wax ni Adji Sarr message bu mu ko bind ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñëw loolu genre enquêteur bi daf dëgg yàlla loolu daf may setal ma loolu li ñu bu ñu demee ci PV dañu li wax nii dama ni c'est que un fonctionnaire moo jàkkaarloo génn bu assermenté maa ngi leen dañu parce que bu ngeen demee bis ba xool ne Adji Sarr bi wax ci SMS bi newu fa te loolu dina mas a leer ndax dossier public bu boobaa dootuma war a yéen parce que du ngeen ma respecté fooy sa mbokk ñaareel bi mooy wéetal bi leen ay saka ba wéetal nee na daf koy setal te dama ko génne non mi ngi ci loolu tam agent assermenté moom mi ngi ci ñetteel bi mu ne Sidi Mouhamed Mbaye daf ko setal ma won leen ni leen Sidi boobu dama leen koo liiral parce que comme comme Ousmane Sonko liiru ko da nga da mu dagg ko parce que arrangé wu ko ma liiral leen ko moom man Ousmane Mbaye daf ni moom ci suy bootalee seet ak Ousmane wax naa Adji Sarr na wut ay preuve te bi Ousmane Sonko ñëwee Adji Sarr fexe na bu wéet ak moom waaye day wóor Ousmane Sonko seetalu ko man leen lu fi dañ wax ni lu ci ci lu xaw a compliqué la ci domaine Ousmane Sarr Ousmane Ousmane Sonko man waxuma dëgg la waxuma lu dëgg mais dama ne moom liiru ko da ngeen ko et puis lu ci bari sax bu ngeen jëloon seen seen damay def conférence de presse ngeen agrandir ko kii liggéey ci mën ngeen koo traité moom génn ngeen loolu yomb na voilà merci. après loolu mooy ci wàllu modification xam nga léegi bi may wax ci naan Ousmane daf mu góobloo non li ma ko wax mooy Ousmane daf bi ñu ko laajee li ko koo jëlee loolu. daf nekk rencontre intergouvernementale moom la ma see bëgg a taxawaat nag parce que bu fekkee xamuloon ne yoon di doxee dafa am loo xam ne da koy jox fulla ak fayda amul dafa mel ni dossier bi rapport intergouvernemental dañu am solo parce que effectivement Ousmane Sonko moo ko amal solo mais xalaat nañ ndax am na solo rapport interne bi tey foo woo ci Sénégal li ko nekk ci rapport interne bi li mu lay wax mooy rapport interne bi Serigne Bassirou Gueye ak général Moussa Ba dañoo komplo ba mais enquête interne boobu loolu tax boobu jóg capitaine bu rëy lañ doon enquête tey amul booy lañ ba mel noonu rapport boobu mooy bi ñoom enquêteur déedéet dañuy rapport boobu mooy mosu nañu sa sew dafay giraawal yi moom général Moussa Fall waaw loolu taxul ñu te ah, rapport boobu déglu wuñu déglu wuñu Moussa Fall kon rapport boobu ban njëriñ la bu fekkee rapport bi am na ci seen i seen i seen seen kon li may euh, fàttali nag ci rapport interne bi tam parce que bu bu génnee ngeen teel ko préparer moy bu ay gendarme ñoo ma accusé de yaakaaru falsification déedéet gendarme dañ ni man maa ngi teg pression loolu moom na ñaar ko ñett gendarme moom ci wax yi ci waxu Ousmane Sonko wax nañ waye di falsifier bi ñu wax ben nit moo ko wax mooy carte d' da nga xamne wax na leen ni normalement bi postérieur warul jël ay wax am carte de Touré wax bu ko waxe commandant rek weddi na comme nee nañ sa rapport dana génn ma dama xam sa rapport boobu am lu tax mu génn rapport bu tee Ousmane Sonko génn la lan moo ci dëgg am na koo xam ne Pape Alé Yalla tudd liir na rapport bi li ci ëpp liir na ba mu des xëy na bi mu ñëw ci commandant Mbeng am na lu Mbeng wax lu ma setal loo xam ne liir lu ko am na fu Mbeng wax remarque yokk na fa pour chargé ma mais bu passé loolu mais liir na PV bi li ci Ousmane Sonko ci boppam PV bi yóbbu ko cour supérieure yóbbu na ko ci doyen des juges yóbbu na ko inspection générale de l'administration de la justice wax na ci yéen waaye léegi lu muy nangu ci beereel maa ngi def yéen Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag génne rapport. donc Ousmane Sonko nag génne bi enquête bi gendarmerie def la ko génne bu ko génnee di ngeen gis ni capitaine Touré moo accusé kilifaam weddi liñ ci wax ni maa leen teg pression nee naa leen amul problème mais rapport boobu amul njëriñ mais même su amoon njëriñ wan naa leen ni mu wax bu fekkee rapport bee ko wax sax mais dinaa leen wan naa leen ay preuve à l'appui yëral leen paragraphe yi ba ngeen gis ko yaakaar naa léegi centre bi may wax bi may point bi may njëkk a damay wax ni lii mën naa conclure ci ku deful droit ku sant Seck wala ku sant Diaw boo xam ne bu dóobu réfléchir fii tam noonu laay def

su dee loolu wax naa leen ne bu ma nee fragrance ba dama koy na te loolu mooy kon si biir ñett ñaar nee na lii war a mën a nekkal xanaa sama xel mooy dama ko def pour charger pour gë pour gën a compliquer cas Ousmane Sonko même su ma ko jàpp aussi mu compliquer ba nga xam ni fii ba procès bi jeex day ñàkk waaw loolu bu ma ko man code de procédure pénale may na concernant code de procédure pénale article 33 dafa wax ni procureur mooy enquête wala muy enquête la il procède pour moom bi muy enquête ba ci tijji su ma neexoon ma ne ko arrêté enquête bi démb jox jox ma ma àggale ko pour que am na boobu trop arrêté sa enquête fii la yem doy naa ci ñoom ñoom comme gis naa ko fii gis naa ko fii nangam arrêté enquête bi indi maa ngi koy àggale man ci sama bureau. entendre bu ma neex bu ma jàpp ne war naa ko entendre ma entendre loolu maanaam droit na moom du ma foofu sax parce que Sénégal lu mu mës gis mën ne amul mais dama ne lu rek seen yooyu ñu naan appel dugg dugg dafa am ay ñuy dafa am naa section recherche bii doon déglu Adji Sarr ak waroon a déglu Ousmane Sonko ñoom ñoo déglu ñëpp ba des ci ñu tuumaal procureur leen indil leen ma enquête bi biñ ko indilee mu entendre ci ñu tuumal ci parquet parce que article 33 moo ko ne enquête boobu mu def ko am mooy enquête bu baax dossier dossier bu baax xamoon gëj nañ ko gis bi dossier boobu commencé ba def jeex kenn mos ci bind virgule kon nag su ma neexoon nag indil enquête daa ko nga commencé ak kon Sénégal nañ nangu ndax enquête boo xam ne yow ñëwagul ci procureur presse bi jot ci su ma ko nangoon sax dèjà damay am justification bu yomb mën naa koy discuter man au lieu may wax naan commandant beeg yokku ci dara bu ëllëgee mu may weer wala yooyu ma yokkal ko sama bopp du ñeme yàlla la rek mais dama ñeme yàlla naan ko tindil ku dóor sonn ma ñeme yàlla nit daal ci yokk nii déglu naa El Malick Ndiaye bu pasteur nee na Ousmane Sonko li ñëw wax moo def kon tool est ce que tool mën naa ëpp yéem ma toog ko dina suma comme damay sos di indi leen ay problème mënoon naa jël enquête bi ni indi ko ma àggale ko su ma ñëwee El Malick Ndiaye moo wax mo déglu nañ ko fii bii la juddoo nanga daan daara jot xaw dana oh. wax El Malick Ndiaye parce que naa léegi bas la may woon léegi su ma El Malick Ndiaye kat bi ko dégloo nee na Sonko daal luñ ko wax moo def nañ sax di ko gën a di clôturer teg weddi moo fi nekk rek dem El di musuma yooyu fi ne coow yi dugub Ousmane Sonko di ma saaga comme ni may saaga loo xam ne loolu mooy li mën a am njëriñ mais xalaatu capitaine Touré ñu changé ko xalaatu capitaine xam xalaat procureur amul dara lu xelam xalaat lu mu màcc lu dul li capitaine bi xalaat moom laa changé changé wu ma enquête changé wu ma procès verbal changé wu ma certificat médical changé wu ma dara xalaatu capitaine Touré laa changé mais boobu procureur loolu lu muy jëriñ bu ñu changé carte d'identité lan la may lan la jëriñ producteur loolu mënul dugal Ousmane Sonko mënu ko mënu ko sax wax naa leen ne ñett yi ñu wax ni Adji Sarr li ak li Ousmane Sonko wax ne daf koy setal mari setalu ko tuumalu mais juróom yi ñu wax nag mel ni dañoo bëgg ni loolu day tuumaal Ousmane Sonko jàppaataan ne setalu ko tuumaalu ko parce que gendarme moo ko xalaat léegi nag bu nekkee ci biir procédure la bu baax ñoom ñu dem seeti xanaa leer kon yow boo laajee Ousmane Sonko ne ko sëriñ Bass ba intérêt laa am ñun xam ne aw ma ci woon intérêt tey plan bi ma defoon fee dama leen a ni lii droit wan leen yow mi sant Seck lii mooy sa xat après wan leen Ousmane Sonko daf maa déchargé fii damay wan ni la Ousmane Sonko daf maa déchargé dafa def dafa am taxawaay boo xam ne daf Ousmane lu ko dossier bi dafa nul procédure bi dafa nul instruction lu ne dafa nul waaw la tous ces blessures sont nulles yéen yéen chroniqueur judiciaire lan moo ciy pexe am ngay avocat doo dem chambre d'accusation ne ko Serigne Bassirou Gueye bii ma tuddee Barbouze ak xaw ma triangle des Bermudes nga xam ne day falsifié dafa falsifié pexe te instruction bii maa xam jàll def aussi lii yëpp daal dafa nul nga ne chambre d'accusation mu annulé ko waaw loolu tax bi dossier bi pare ba nit ko clôturer moom demul chambre d'accusation pour annuler li nga xam ne lu bon la parce que loolu bu ñu ko annulé woon xam nga lan lay lan lay indi fu ne annulé Ousmane Sonko ñibbi non pour noppal Sénégal loolu baaxul ci moom mais defu ko mu jël yoon bu sori la mel dañ def cour suprême dañ jàpp seen machine yu béy ñu dëkk gaz dañ dàq seen machine bi mais loolu mooy yoon bu compliqué ndax il faut nga am autorisation ministre de la justice beneen bi fi ne ko étage par exemple da ko jox ministre bi ñu yónnee ko cour suprême eh, toog dama àtte mais loolu day yàgg te boobaa moom procédure am ñu ngi continuer kon kay li gënoon a simple mooy mu yóbbu ko chambre d'accusation ñu annulé ko parce que ba mu annulé dafay mën a jël yóbbuwaat ko cour suprême ni bi defoon nii te ga te xaare te ga euh, natta boobu yee annulé nañ ko moom kii lañ war a jàpp boobaa nag moom dafa naa kenn du war a défendre Serigne Bassirou kon au lieu ngay jël ay yoonu cour suprême bu guddi boobu waaye ñu wër chambre d'accusation rek yow defoo ko defloo ko say avocat moo lay wan ne moom da doon communiquer waaye dëgg-dëgg li ñuy wax ni ko ñoom ñaa leen na kaay députation avion li nii yor nga visa yor nga bii léegi dama jël avion bi dama jël saret jaar ci wetu géej gi parce que am na ay xeer ma yëg ci après géej gi mën nañ yàlla mën na def mu glacé te sama saret bi mën na yàgg loolu la ñuy xam yow bu ko defee états unis états unis bu bëgg a defee da ngay yooyu yëpp ay budal yow sëriñ Bassirou nga bëgg ñu sanctionné chambre d' accusation bi xam nga chambre d' accusation daal mooy avantage ci moom xam nga bu demoon chambre d'accusation la moo si ne mooy bu dem chambre d'accusation du tàggu ministre du tàggu sax juge d'instruction Maham Diallo bi yóbbu dossier du ko tàggu du tàggu procureur Amady Diouf du tàggu procureur Serigne Bassirou bi du tàggu kenn du leen ko sax yëgal day seet poosu grand boobu mu génn ci benn feuille jël bi bind ni monsieur le président de la de la chambre d'accusation Serigne Bassirou bi ak Maham Diallo bu teel wax wax nu procédure bi ñuy dem

day yónnee juge d'instruction bi nga naan dafa lay complot ni ko dossier bi nga yor yónnee moom arrêté yónnee moom en original boobu nekkul ci moom bu ko yónnee ci la koy soog a jàpp ñetteel bi avantage yu chambre d'accusation ci moom mooy yoon ndax bi chambre d'accusation bu yónnee dossier bi ci juróomi fan war naa wax ndax Ousmane Sonko li muy wax am na dossier bi nu France bu fekkee am na ñu naan am nañu dossier mu dem nii coow di jeex moom mu seet yeneen lu muy liggéey ak gars yi doon ko loolu la wala chambre d'accusation nii Ousmane Sonko léegi wax amul article cent quatre-vingt-dix-neuf may na chambre d'accusation dañu soo jotee dossier donte ne Ousmane Sonko wax amul yow mën naa def revue xool page par page benn par benn ci dossier bi yëpp boo ci gisee lu ko mën a annulé donte ne Ousmane Sonko gisu ko chambre d'accusation da koy annulé mbir ma yem ko waaye yow nga am yooyu chance yëpp. bàyyi fa chambre d'accusation topp ndaw bi farafa bi jëm ko loolu mooy Ousmane Sonko nekkoon ci stratégie de communication donc il faut ngeen xam yéen journaliste yi yàlla am xam nañ am ngeen expérience du ngeen accuser kenn du ko kenn mais xam ngeen ni wax dëgg yàlla lii wax ni amul sens mais yeneen Sénégal yi nga xam de bonne foi yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi may xas ñu kii mais seen njort rek moo yaakaar ni Ousmane Sonko wax dëgg ñu wóolu ko ci ni muy waxee ak wax ni muy aaroo ak ñu wóolu te li muy wax nii keesal kon war naa leen ñett nee naa leen benn mënuñu war a deñ ñun mënuñu war a def loolu amul bala ba ñaaram ma war nañ la yow dul xaar laajal Ousmane Sonko ban inter laajal aw ma ci inter amul intérêt ñetteel bi ma war na Ousmane Sonko boobu moo ma seet bala may jeexal boobu xam dama bëggoon essayer bu changé parce que dama ciy des waat il faut mu génne ñaar benn mooy rapport d' enquête gendarmerie bi na ko génneew lii li commandant bay nga wax ci man bi ma capitaine Touré taxalee na ko liir loolu mooy jëfu jàkk man nag liir enquête bi parce que génn na ko frais wax na ko génn si nit Sénégal yi gis ko bu boobaa su ci amee leneen dinaa dellusi ci anam bi may dellusee mu nekk anam bi bu boobaa naa wax ba ñu dégg dinaa génne ba ñu gis wax bu àgg nag ko ko moom kon fii tënk daal mbir mi mooy loolu ñett yi may dañ koy décharger ñaari waxtaan la bi ci PV changé wul mën ko ñetteel bi waxtaan la bi bu koy dugal su ko génnee sant yàlla la war a def juróom-benn yi koy dugal ñeente yi ñu ngi tee ñaari am na chance correction yi génne waale am na chance correction yi génne waale moo tax na ko lii magistrat asama ah, bu PV yi génnee rapport enquête bi bu bu Adji Sarr génn bu Adji Sarr waxatuma bu gendarmerie boobu wax naa ne suñu la rapport enquête bi nekk ci procès verbal bi nekk ci Maham Diallo bu bi ko bi Ousmane Sonko yoroon ni boobu mooy baax bi maa ngi leen di wax yéen ñëpp ko teel a ni di ngeen gis nii bi Ousmane Sonko yor moo gën a dangereux ci moom bi nekk ci PV moo gën a sedd ci moom te am na ñu ko gis wax nañ ko a yaakaar naa ni léegi xam na loolu parce que gis naa am na benn yoon bu mu jël loolu xëy na man tey laa wax ci bi wax ñu takk rek di wax di wax man na am su ma ci waree deux fois boobaa nag nga xam ni. 嗯，那我。